Diao. xibaar yi ñu tàmbalee ko ak euh, mbirum euh, Ousmane Sonko mi tànn Bassirou Diomaye fay ngir mu nekk seen candidat ci euh, présidentielle bu 2024 nekk plan B bi. soxna naata loolu démb lañu ko siiwal ci Jotna TV Euh, Pastef di xam ne ne ubbi nañu tey ñoom seeni opération de parrainage euh, altine 20 euh, novembre fépp ci Sénégal ak i tamit ci diaspora bi ngir seeni parrainage ñu jagleel ko kooku ci Bassirou Diomaye Faye mi nga xamee ni moom la ñu tànn ngir mu doon seeni plan B basiru jamay Faye nag moom jamono ji mi ngi ci kaso bi ñu ko inculpé placé ko sous mandat de dépôt loolu depuis mois d' avril avril 2023 li ñu koy toppee bokk na ci euh, outrage à magistrat diffamation et acte de nature à compromettre la sécurité euh, publique dañuy des ci waa Pastef yooyu fële ca Matam juróomi weer euh, ginnaaw faatub gune rappeur boobu di Baba Kana Euh, moom euh, daal euh, dañu ko faatoon ci ay manifestation loolu tax ba waa Pastef yi nekk foofu ca maatam bañ doon jënoog taskatu xibaar yi ñu jiiñ ko régime bi fi nekk ñu ne ñoom ñoo def lu ne mel fi mu nekk nii nag li ñu bëgg daal mooy ñu leeral ko te teg daan ñi nga xamee ni ñoo nekk ci ginnaaw faatub gune googule ñu teewlu ci reportage Ali ña ak El Hadj ndaw politique yi fare ci parti Pastef ba woon ba léegi mënaguñoo noppi ci faatu Baba Kana gannaaw ab ndaje taskatu xabaar yi ñu doon amal ñu ngi sàkku ci nguur gi mu leeral ñi nga xamante ni ñoo di def ñaawteef ndax jàpp nañ ni xale bile dañ koo faat ci événement yi fi amoon ci weeru juin ca jamono yi farandoowu Ousmane Sonko yi doon jàmmarloog tàkk der yi Baba Kana woon kenn ci rappeur yëpp mbooloo ci diwaanu Fuuta daal di ñàkk bakkanam laata ñu koy jébbal borom moom ci sëg ca boy naaj yi tey jii tembekoon si seen dajeg taskatu xabaar yi ñuy interpellé kilifay nguur gi ñuy sàkku ci ñoom ñu leeral yëf yi ne metti na leen ba fi metti yem suñu frère bi nga xamante ne dañ ko rayoon si mois de juin muy euh, notre frère Baba Kana mu ngi dëkk Boynaaji euh, ay frère am ñu ngi fii nii euh, fi ñu nekk nii Baba Kana c'est rapport bi nga xamante ni dafa yoroon labelam di produire ay xale dafa yoroon ay xale di leen liggéeyloo entreprise la yoroon di leen liggéeyloo Baba boobu noonu la ñu rey si ay détails taalul pono deful dara rombo ñu tiire ko bal ba pare sandi ko loolu Baba Kaane nit la koo xamante ni fii ci département de Matam bokkoon na rapport yi gën a engagé bokk na rapport bi nga xamante ne mu ngi xeex ethnicisme bokk na rapport boo xamante ne bokkul ak nit ñuy wax ne da ko bandum da nga war a jàppale Macky Sall ndax sa mbokk la nit la koo xamante ne da doon xeex ak ak yelleef ah, njabootu Fuutanke wala nga ne njabootu sénégalais yëpp cible la woon nag ci biir département de Matam parce que moom seul la ñu gisoon fii rapport bu engagé buy xeex gouvernement bi di wax Babacar boobu noonu nag saraxe wuñ ko may ñu ko ñi ko rey nañu xam ne fii ba deux mille cent ñun du ñu bàyyi Babacar c'est notre frère justice day def liggéeyam par force bu ko deful si régime assassin bii nii régime bii ñëw dinañ xeex incha allah rab ba justice def liggéeyam ñi ko rey nañu xam ne du ñu mus nekk si jàmm incha allah rab bi ñun ak seen famille dañu. ndaw parti pastef ba woon di yégal ab manifestation bu mag bi ñu namm amal ci boy nag yi ngir jàppale njabootu Baba Kaanam yi génn àdduna te nag mu di ab rassemblement bu mag bi ñuy waajal ñu am wala ñàkk am ndigalu autorité administrative bi ñu wax ci jafe-jafe yi dox ci diggante euh, fédération bi ëmb liggéeykat yi ci wàllum wér-gi-yaram ak seen ministre di docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye moom ministre bi ci boppam mi ngi ciy indi ay leeral. Euh, moom ma nga woon démb ca assemblée nationale moom euh, Marie Khemesse Ngom bañ fa ñu doon voté budget ministère de la santé de l' action sociale moom di dellu si ci maanaam yoo xam ay aboutissant maanaam di nekk ci accord bi nga xam ni signé woon nañu ko mook syndicaliste yooyu nga xamee mel ni euh, jamono ji euh, neexoowuñu euh, ne nañu élément bi pareegul hmm. peut-être que du ñàkk balaa ñuy jeexal xibaar yi ñu déglu ko waaye kii di waa f te nga xam seen Cheikh Seck moom mooy seen porte-parole moom daal nee na. naqaru na lool sorti boobu nga xamee ni euh, seen ministre de bi def na ko ci mbirum contractuel yi nga xamee ni euh, dañu leen euh, beddi ci indemnité yi nga xamee ni dañu leen ko fay te ñoom nee nañu ba ñuy négocier boole woon nañ leen ci waaye ñoom jàpp nañ ni administration bi ñoom ñoo andi maanaam ay dugal ci biir ay termes yoo xamee ni day dem ba indi xel ñaar loolu moom moo tax ñu beddi leen ci Euh, ñu naqarlu ko lool Cheikh Seck moom tamit dégg ngeen ko sànq ci xibaar yi ci euh, nasaraan mu ci euh, hmm, andi ay leeral je pense que sax élément bi noppi na ñu déglu ko Cheikh Seck nekk porte parole docteur Marie Xemes waaw dañuy déglu docteur Marie Xemes laata ñuy ñëw ci Cheikh Seck syndicat boo signé accord buñ ci tegee dara ne kii mën na am lii huit milliards yi ngeen di wax huit milliards yi ñun ñoo def simulation bi jox ko ministre du budget daal ne bés bu ñu toogee ba war koo fay nii la tëddee Marie Xames médecin lii lay am sama euh, yumpaañ lii lay am diw lii lay am lii du am ba nga xam ne suñ joxee feu bi rek ñu fay mais buñ ci lonkalee ne ma ñu ngay fay ci cadre bii la ñu te 18 catégorie la en tout cas man du ma fay ci bokkul parce que day nekk faute de gestion xaalis ba nag nekkul ci man damay bañ ñu seet si ko ci man bu ñu fayee li ñu war a fay dañ koy delloo ministère du budget xëy na sax mun na mu indi waat ko assemblée wala fenn parce que budget nag dafay xaw na tuuti tuuti fiction ñun yor ñu xaalis boobu. 8 milliards yi ñu ñoo ko compté ñoo ne bés bu ñu toogee ba ne def leen élargissement nii la war a tëddee loolu dañu si war a gërëm mais waruñu si xas donc man yoruma xaalis ministère la l'action sociale yoru xaalis ñu war a fay ñëpp fay na jaar ba ci weer bi ñu donc ñun ko. contractuel itam kiy posé question moom xam ne luy budget lu ma ci tontu dama ne fay nañ ñi war a fay ku ne xam ne ne bu ñu fayee ba pare xaalis li ñuy fay la ñuy fay si des ñu delloo ko ñun duñ ci warante ñun nous sommes des techniciens ay responsables lañ duñ fi nekk di warante mais dama ne bu ñu ñëwaatee wax leen ko dinaa leen yónnee joxoon naa ko ajaat Sira fi nga xam ne foofu la ñu signé bu ñu gisee ne rek ñu wax ñu ko ndax ñii samay doom lañ ñii maag ñoo ma ñii samay rakk lañ ñii samay nijaay lañ amuñu benn coxarte pour fay leen mais yéen dama leen bëgg a waxal yéen élu du peuple yi ne loolu nekkul li nekk balaa ngeen fa jóge mu leen koy joxe léegi c'est ñu wax ci wàllum tàggat yaram léegi euh, bëri door Lac 2 moom moo jël raw gàddu gi ci kanamu Siteu loolu tukkee ci ab décision bu arbitre bi. ah démb fële ca arène nationale moom Lac 2 chef de file écurie Waalo euh, daan euh, kii di Siteu ci combat boo xam ne daanaka duré na ñaar fukki minutes daan bi nag décision arbitrale la ndaxte bëri nañ kenn daanul sa morom Siteu li ko perdre le combat bi maanaam. maanaam euh, benn avertissement la jël euh, looloo tax euh, ñu jël ndam di jébbal ko Lac ba tax léegi mu ngi ci fukk ak ñeenteelu ndam ci carrière ci fukk ak juróom-ñeenti combat yoo xamee ni jot na ko bëre ci wàllu football la ñuy wax ak éliminatoire mondial 2026 RDC bokk poule ak Sénégal moom opération bu dooy waar la def ndaxte Soudan daf ko daan euh, benn bal ci dara euh, loolu nag euh, nekk nouvelle bu neex ci Sénégal ndaxte RDC moom mooy adversaire bu gën a taxaw ci poule bi nga xamee ni moom la seq ci course qualification coupe du monde 2026 Sénégal nag su bëggee fructifier Euh, avantage boobu fow mu gagné euh, ëllëg euh, ci jongante bi nga xam ne daf koy seq ak Togo nga xam ne fële ca Kégé lay stade bu Kégé lañ koy amee ca Lomé ëllëg lay doon nag su ñeenti waxtu jotee ci ngoon ba léegi ci poule boobu. Mauritanie moom dina dalal Soudan du Sud mi nga xam ne moom la Sénégal dooroon bërki démb 4 ci stade maître Abdoulaye loolu fii ci stade maître Abdoulaye Wade koy amale ndaxte Mauritanie euh, mënul euh, recevoir euh, dëkkam ba léegi ci mbirum internationaux yi ci Coupe d'Afrique bi di ñëw tamit jàpp leen ni CAF jox na autorisation sélection africaine yi nga xam ne ñoo qualifié ku nekk mën a yóbbu ñaar fukk ak juróom-ñaari joueurs maanaam 27 joueurs ci liste yi ñu 23 waaye CAF yóbbu na ko ba 27 loolu tamit mën na jàpp ni nouvelle bu neex la ci Aliou Cissé mi nga xamee ni euh, daanaka bari na ay jour lool lool lool maanaam ba dafa am embarras du choix dina tax mu gën a yaatal euh, tànn bi. ba léegi tamit naata jeexale ko ci coupe du monde U20 Sénégal nag moom euh, huitième de finale am dina ko amal. mercredi lay doon ci digganteem ak France muy match bu xaw a doy waar euh, huitième de finale yooyu nag tey tey jii lay euh, commencé euh, bokk na ci affiche yu ci mel ni Japon bi nga xamee ni tey lay daje ak équipe bu Espagne soxna naata. Mm, merci beaucoup Cheikh Tidiane ci xibaar yi ci yaatal gi bu leen fàtte ci kanam dinañ ànd ak Kailash Daouda ci jàngat bi buñ ca noppee dalal Aminata Touré moo nar nekk suñu gan léegi dañuy yër yëgle tay li ñu xëyee tey jële